asalaamaaleykum rafetlu seen rek rajo Futur média dañ koy tàmbali ak conducteurs yi nga xamante ni ñooy def moto taxi yooyee nga xamante ni dañuy defaale transport en commun gouverneur bu ndakaaru nag génne ci ab këyit daal di ka aaye ñoom nag xëy tey ba ñu xëy seeti leen ca kolobaan nee nañ duñ ko nangu ndax ci ci la ñuy faj seeni soxla Mamadou Omar Ba reportage. dañuy daw. client daanaka ñun client yi ñuy yab. Mouhamed Sakam Leweko indi ko ci kanam toog ci motoom di xaar client mu ne ñiy agressé bokkuñ ci te ñoom la client yi di wër. parce que dëkk bi circulation bi métti na métti métti boo xam ne de yaa ngi dégg loo gis lu ne liggéey boo mënti dem am na ñoo xam ne dañuy xajamal moo tax lépp ma ne au bi nañu jàppale pour ñu structurer ko parce que buñ ko structurer ñun suñu biir dinañ xam ñan ñoo ci bokk ak ñan ñoo ci bokkul parce que lii au moins sax même di nga dund au jour le jour di faj say soxla soxla faj soxla doom faj say soxla jabar. lu soriwul dara foofu Abdou moom day jëfandikoo moto yi mu ne bu ko fi nguur gi naree dindi na leen utal beneen liggéey. bu nee nag dañ fee bëgg a jëlee loolu wala bëgguñ mu am biir Dakar ah dañ utal jeunes yi liggéey ba pare moo jiitu lool buñ créé emploi. munoo ne munuma laa tey jii nii fekk ni tere ko lii ba pare joxoo ko lu. dawalkatu moto taxi nag fas yéene wu ñu bàyyi benn yoon seen métier bii. dañuy continuer suñu liggéey parce que tamit ñu ko continuer lu ñuy def dañuy dem toog suñu kër toog di xoole loolu munul nekk mënul nekk munuñu dem toog suñu kër toog di xoole ñuy xëy ñuy romb bu yàggee waa kër gi sax ñoo ñuy jéppi naan kii moom góor bu ne léegi deful dara toog nii rek. loolu du yoon loolu bu ñu amoon lereen dañ koy def mais amuñu leneen lii lañu am si lii la ñuy jàppandu ca seen arrêt bi ñuy faral di taxaw Colobane ñoo ngi fa liggéey bi di wéy jamono ji nga xam ni gouverneur bi mi ngi ñaax police ak gendarmerie ñu wéyal contrôle bi ci bépp moto bu yab ay nit Mamadou Oumar Ba des ci mbir moom lay bi yoon nag syndicat bi ëmb taximan yi ni ñoom rafetlu nañu euh, dogalu gouverneur waaye nag li ñuy sàkku mooy ñu jëfee ko rax ci dool yi ñi nga xamante ni ñooy def transport en commun ci euh, moto yi ñooy tax yenn saay sàcc bi di am ñu teewlu Modou Ndiaye muy seen secretaire général. bokk na ci li nga xam ne wax dëgg yàlla euh, pratiquement depuis at ak genn wàll ñi ngi koy ñi ngi koy ñaawlu di bëgg état bi jël ci ay matubaay kon su gouverneur xëyee da benn arrêté boo xam ne dafa def interdit lépp loo xam ne muy transport euh, euh, ci biir Ndakaaru loolu dañ koy rafetlu day mekk day mel ni fekk si nañu suñu demande vraiment. Mhm. yéen nan la xeetu transport boobu di yàqee seen liggéey. waa xam nga xeetu transport boobu soxna si concurrence déloyale la. en même temps di transport boo xam ne dafay indi insécurité routière. en même temps dafay yokk li ñuy wax euh, maanaam càcc gi ci biir euh, dëkk bi. parce que boo xoolee euh, ñi nga xam ne. Euh, ñooy soxla yi ne ci dëkk bi ñu di leen agressé la plupart di jël seen ay saak ñi koy def ay moto la ñu yor. événement bi amoon ci mois de mars passé te mu bari woon ay incendie ñi ko doon def ñu ci bëree bëri moto leen doon indi ko di ci sol essence dem ba ci yenn endroit yi ñu sotti fa essence teg fa ay pneu taal mu tàkk gis nañu ne dafa commencé indi sax ay ay jàppante ci diggante taximaan yi nga xam ne dañuy def transport régulier ak ñoom ñi nga xam ne dañuy def irrégulier Modou Ndiaye bu syndicat yu taximan yi